wax moom xam nga euh, il c'est pas quelque chose de nouveau c'est pas quelque chose de nouveau Idy dafa yàgg ci réew mi dafa xam Sénégal vingt neuf ans la commencé di politique dugg ci coin ak recoin Sénégal gi yëpp créé fi marche bleue yóbbu Abdoulaye Wade ba ci kaw nekk directeur de cabinet nekkoon fi premier ministre ah nekkaat ci opposition bi dellu soit nekk ak Macky Sall donc Idrissa Seck xam ne dëkk bi c'est pas pour rien mu dugg dans le gouvernement de, de dans dans euh, dans ce que vous appelez très souvent le Moroxo. c'est pas pour réalité. non non non ko non non président Macky man je ne suis pas les quelqu'un de très très. moo fi wax waxu Moroxo. waaw c'est pour vous dire tout simplement loolu yëpp c'était pourquoi parce que cela nous a permis encore davantage de pouvoir connaître li <laughs> nga xam ne moom la gars yi. bay avant Gloria bi wax ak yow bi xaw a commencé ënn. j'ai dit une chose euh, voilà man ak euh, par exemple euh, ci ci loolu bi ñu duggee la majorité présidentielle moi ça m'a permis de côtoyer euh, les les Yaakaar j'étais bi ñu la. parce que bi ngeen di ñëw au ñu bare dañ ko ignorer. man man man maa nekk le coordonnateur de Thiaroye-sur-Mer bi ñu defee euh, bi ñu préparé euh, les législatives dañu former benn on s'est retrouvés ensemble c'était la première fois ma xaw noonu waa Benno ak waa Benno je ne les connaissais pas avant peut-être dañuy daje waaw nekk ci biir et j'ai pu découvrir leur stratégie ça m'a permis de les connaître davantage de comprendre comment ils font xanaa 2014 ah 2014 non non boobu xam nga j'étais encore en activité donc je ne pouvais pas quelquefois être très. léegi léegi léegi noppi gi nga ne noppi gi yow. noo ko noppi gi c'est extrêmement important. Hmm. xam nga le silence ah dafa am solo. nit dafay am foo xam ni boo fa tolloo da ngay noppi. waay boo xool. noppi nag moo jafe. déet noppi dafa am lu koy waral xam lu koy waral. xam nga noppi parce que amoo wala da nga noppi parce que boo waxee tamit kenn déglootu la wax na fi waxati. si wax na fi waxati. mais on a vu quand il a fait sa sortie sur euh, sur euh, RFI. xam nga dafa dafa dem benn moment a fait ces deux déclarations ak euh, conférence de presse bu mu fi defoon mais on a vu ce que ça a donné. les gens sont revenus. def discours. yàlla xam ne boo génnee léegi benn xale benn xale bu ndaw resté la ni la Idi lii la wax. mais léegi da ngay wax. 2004 nga wax. tey ñu ngi ci ñu ngi ci vingt ans après. ba pare nga naan c'est quelqu'un qui est résilient. waaw mais nga ne ma noppi c'est quelqu'un qui est endurant. les choses ont changé de sëñ bi. oui je sais que les choses ont changé. mais nous sommes adaptés aussi. par rapport à ça ni daal stratégie. moi je fais partie de ceux qui. pas plus tard qu'avant-hier je discutais avec quelqu'un je lui dis mais il faut maintenir le silence. c'est une forme de communication. aujourd'hui tout le monde en parle tu m'as invité pour pour pour que je. parle du silence de Idrissa Seck c'est important ça nous donne de la visibilité je pense que am na ñoo xam ne seen man-man mooy taxaw di wax di dem ci plateau de télévision yi on a vu ce que ça a donné. da daan wax de. non c'est-à-dire Idi buy wax. da wax bu wat bu wax jotee birima la. ñu naan waaj gis nga ren ba déwén. waaj benn yoon lay génn wax ñëpp déglu ko. waa ji ak féroce. waa ji bu waxee rek xoolal bu waree wax ñëpp toog di xaar rajo bi. incha allah bii ba incha allah bu waxee. non non no non yooyu c'est toi incolore inodore non c'est trop dire. mais dem na à la limite c'est à la limite journaux yi sax ndeysaan. non tu sais mon cher euh, camarade. woote na fi à ñu dem fa. non ko en direct ñu waa 7TV mais apparemment lan moo ci ruusandi ay coppet ni ko taf ci kaso bi. léegi seen wax yëpp seen wax yëpp c'est non non non faut pas faut, il faut, euh, euh, de sénégalais ne ne ne bon bari na ñu ñoo xam ni ñu mel ni yéen ñoo leen di dévier parce que tout simplement vous de vous tenez des discours yi nga xam ni. amul non non non des discours euh, pour charger tout simplement. li mais li nga wax amul. parce que tout simplement. moom ci boppam mi ngi taxaw. di def liggéey bi muy def aujourd'hui au niveau par exemple pour élargir la coalition mi ngi ci programme bi mi ngi ciy liggéey. ñun xam nañ ci dara mais ça on ne peut pas le mettre. sur moo nekk ci coalition pour le moment. ah mais am na coalition c'était malaisant. oui ça va venir incha allah non vous allez di ngeen gis loo loo xam ne mosu ko gis ci Sénégal.